président yo, bonne réaction de am ci polémique bu commencé installer ci troisième mandat avec euh, limogeage Souri Kaba ak Babacar Gueye constitutionnaliste ok appuyé na lu Souri Kaba en tant que responsable politique ban jàngat ngeen si am. jàngat bi ma ci am rek mooy. Souri Kaba dàquñ ko pour affaire troisième mandat. hein, te la liggéeyam ci lañ ko dàqee. président ku mu dénk ku ne liggéey liggéey ba defoo ko na mu ko war a defee am na droit dàq la. buñ ko yóbbu foofu nañ ko yóbbu ci li taxoon ñu fal ko mooy mu liggéeyal Sénégal li taxoon ñu fal ko mooy yaakaaram ci moom ne mën a remplir condition yaa ngi dégg ñuy wax ne Sénégal li dee ci àll bi kenn xamul ñaata a ba léegi euh, en tant yore li nga xam ne mooy mooy mooy euh, comment dirais-je euh, étranger yi war nga mëna xam données yi exact war nga mëna man lolu war nga mëna xam lolu war nga am compétence bi pour so demee ba nga xam ne léegi amatoo lu mel nonu ñu dàq la ñu diko wër ci ay 3e mandat 4e mandat né ko lolu yépp ay waxam la yo xam ne moom ñi koy wax ñëpp manam maanaam polémique rek mo mo taxam ñu bugg ci wax waye la tax ñu dakk ko moom du 3e mandat de deuxième fois bi euh ñun suñu loi mayna président ba dañoo woote ñun né président bu né maanaam de de deux mandats cinq ans la ñu euh, lañ fa jox président maanaam bi bu njëkk bi bokk ci bon mu ngi ci bi waaw ah, première bi suñu demee ba nga xam ne maanaam bii jeex na te moom ci boppam su ko buggee te Sénégal yi bugg ko ma ne Sénégal yi ñoo moom seen réew te ñu ñun utuñu ay président di ko euh, pour ay compte ay président ñun li ñu amoon solo ci président mooy président boo xam ne dina mën a indi Sénégal foo xam ne fa la ko Sénégal bëgg comme ni ko président Macky Sall defee bi mu ñëwee Sénégal gis nañ ne am na président yu fi jiitoon waaye euh, gis nga li feeñ ci biir réew mi hmm, li feeñ ci biir réew mi koo xam ne bañ koy nomee dañuy waxoon ne du mën a fay salaire ñu dem ba nga xam ne bu ñu seetee maanaam projet yi bi yi gën a rëy yi nga xam ne mosut am ci gouvernement Sénégal sax am na ndax boo xoolee Ila Touba gii rek projet boobu àll la joo xam ne doona sëkk bëgg bëgg seen terrain bi encore yëpp ay ay ay ay jeexital yoo xam ne ci man-manam ci xam-xamam ci compétence am ci expérience am kooku war na tax Sénégal yi bu ñu demee ba nga xam ne mandat bi jeex na ah bu ñu gisee ne moom euh, président ci boppam bu ñu gisee ne bu ñu ko fi tegaatee dana dana gën a porter Sénégal yóbbu ko fa Sénégal bëgg it suba yi yoon kenn newu ci Sénégal yi ñuy fan te loo te loi bi may na ko ko waaye waaye nag président waxul loolu ba léegi comme ko waxul loolu nag ñun nañ ko wax loolu li wax bañ ko di yokkal ah ne maanaam ni ko jàpp diko diko diko ko lepp ko luñ wax la ta amul luñ ñu wax gisuñ benn preuve bi ñu mën a ak jafe bi ñu mën a président li tax ñu diko ko moy mooy lenn la moo dina jaxlé nañu gis nañ ne fi doon xaar président ne fekk ñu ko fa ci échec te gis nañ président toujours heure bu nek mu ngi gëna a jox Sénégalais confiance lii nag dem na ba jaaxal opposition bi bon lu ñu ko mën a taqal ci ay wax dañ ko jéem waaye président Macky Sall li ko tax a jóg daal mooy fexe ba Sénégal yi ko fal gis njëriñ ci ñu ko doon fal fexe ba nga xam ne dina mën a remplir seen conditions yi nga xam ne moom lañ bëggoon président mu ngi ci loolu guddi mu ngi ci loolu bëccëg waxi trois cent mille képp koo xam yow la engagé waaye président Macky Sall waxul loolu te it bu demee ba ba ba nga xam ne bëgg na ko sax ñun ñëpp dañ ko ci war a maanaam ñun Sénégal yi dañ ko ci dañ ko ci jàppale parce que gis nañ ne moo gën a ci réew mi bon ñi nga xam ne ñoo koy wax ñëpp nañ nañu Sénégal yi xam ne leen tax a jóg rek mooy intoxiqué ci bopp nit ñi yàq liggéeyam te it kuñ fal la kuñ fal la ci cinq ans mandat ba nga dul commencé bon li ñuy war a def rek mooy associé ko jàppale ko gunge ko amaa ñoom Sidi Kaba yi ñooñu nag la tax ñu dàqale ñoom waxuñu ko waaye du avril 300 man daal lu moo tax président dàqale président dàq na dàq na leen ci seen compétence yi il leen il leen dénk koo xam ne amoo compétence yi ñu leen dénk président bu la dàqee bon bul lay leneen noppil noppi rek moo la war parce que da ne la la merci <laughs>